en 2007 bi Aly Ngouille di def ay jéegoom di former mouvement pour la renaissance du Jolof ma bokk njëkk ànd ak moom ànd ak moom ànd ak gor sunu borom dogal bépp élection bu mos am ci Linguère depuis 2012 ak léegi Aly Ngouille daf ko gagné ñu ànd ak moom di liggéey ba yegg si fi ñu toll tey bañ fi ñëw Linguère amutoon lu bari lu bari amu fi woon bi normal toon euh, marché bi mel toon war na mel école yi tumuranke woon nañ. xale yi daa danga daan xàmmee doomu buur ak doomu baadalo mbay mi aussi sooxe woon na mais ba mu yegsee suñu borom kàttanal ko ba lépp jeex na fi tey li may njëkk a war mooy ci wàllu tàggat yaram bi nga xam ne moom laa jiite. stade bu Linguère léegi am nañ ay projecteur barki démb lañ fa inauguré benn mini stade boo xam ne mën ngaa football ci biir wala basket kooku téeméeri million la ko àll ngi defaree bi ci toppaat mooy am na hangar industriel. boo xam ne Aly Ngouille moo ko indi téeméeri million la village artisanal am na fi fukki million lañ ko defaree projecteur bu Linguère ak Daara juróom fukki million la ko Aly Ngouille defaree njàng mekk njàngale mi ñu nekk tey la ñuy inauguré deuxième lycée bi am ci Linguère Aly ngi ci boppam tax na ba école élémentaire bi ñu nekk xale yëpp ay blouse la ñu sol dootoo xàmmee doomu buur ak doomu baadalo dootoo leen mën a xàmmee mbay mi ci nekk am na fi benn tool bu nekk fii ak 14 de Linguère di kilim ñu fay mbay mbayum noor boo xam ne léegi jolof amatul dara lu ñu déggaani lu jëm ci légume wala leneen ci wàllu daamare yi sax am na ay fas yu baax yoo xam ne ay fasu course lañ am nag yu baax yoo xam ne boo leen fa tëbloo sax ci nag yu baax rek ngay am meew ma fa nekk wax dëgg yàlla duñu koy du ñu koy jéggaani si biir loolu ba tey réalisation bi dafa def ay jéegoom dem na ba Daara Jolof def ay lamp ci stade bi àll bi jamono ji def ay financement ci groupement féminin mi ngi toll juróom fukki million boo xam ne Aly Ngouille defal na ko jigéen ñi euh, liñ fi nekk di wax ci Aly Ngouille suñ ko defee tey fi la ñuy fanaan bi ci mujjaat mooy soo demee Linguère am na benn jardin bu ñuy wax jardin communal boo xam ne mbayum noor lañ fay bay Aly Ngouille moo ko fa defal jigéen ñi bañ di fa bay mbayum noor mi ngi ci biir dëkk bi wax dëgg yàlla sant nañ ko gërëm nañ ko góor la géer la te àndam naw la ànd ak ñun suñu borom sutural ko dëppale ko président Macky Sall ñu am jàmm ñi ngi koy ñaanal yàlla rek